surprise boobu ma lay wax man je m'attendais à nga wax ma Ahmed Aïdara ak Ndoye. non Ahmed ba Ahmed Ahmed gañeem man nekkul surprise man surprise mooy maanaam dama foogul moo ne Issa mi dégg ay xale yu ndaw yoo xam ne amuñu benn expérience ci politique nekkoon ay militants yoo xam ne dañu def dañu dañu ànd ak engagement tey ñoo nekk maire surprise boobu moo ma bett maanaam ku ñu loon tey nekk na ko. mooy ndo ay ay ndoy baan ak ay yeneen jeune bu nekk fii ci yoof bii nga xam ne tey xale boobu tey waaw hmm. waaw euh, dañ ko doon tingoom sax moo doon tafal boppam ay affiche hmm. <laughs> yami dégg daan la romb nii gars yi di ko romb nii ak seen oto yooyu moom mooy li ma bett mooy surprise yi nga xam ne mooy li ma bett mais vraiment ay euh, Aïdara moom gañam ci biir géejawaay da ko togg lu yàgg du tey géejuwaay la bokk ba mu koy def boobu ma ngay am na quatre ans ci muy def ay social di def ay acte di posé nekk ci rajo bi di défendre géejawaay ba ay fait divers sax bu élément jógee géejawaay sax da koy joyantu ba waa géejawaay xam ne kii dafa bëgg géejawaay loolu il fallait mu am résultat te loolu moo génn tey. Kaaw Ndoye Bane. Ndoye Bane tamit mooy loolu. Ah, ñoom ñaar ñëpp nag war nañu gërëm seen seen seen groupe de presse parce que fa nga toog di jooytu ba ñëpp di la dégg ci émission am na candidat boo xam ne nekkul animateur nekkul journaliste amu ko yow raw nga ko ci loolu parce que boo toogee tës yaa ngi wax la metti euh, auditeur bi di ko déglu dëkk géejawaay boo nekkee xalaas yaa ngi wax li la metti euh, sa auditeur bi nekk pire di ko dégg di am lu ko metti waaye candidat bi nga xam ne moom ngay jokkonteel nekkul animateur nekkul journaliste kooku rey nga ko ci côté communication kon na jot na nag ñoom tamit léegi ah ñu dem lijjanti seen mandaa bàyyi ñeneen ñi daal di ñëw toog. bu leen ah, neexee nag waaw non je je pense que ne loolu moom moo moo légal parce que tamit euh, euh, groupe bi nga nekk am nga fa euh, audience boo xam ne des fois nga tarxiis waxaale sa soxla ba loolu apporter la benn. Euh, benn euh, euh, ovation bu mag boo xam ne tey bu dul woon nekkoo si presse xëy na day metti pour nga def ko parce que division invitation yi rek ci ay rajo ak télé mun laa may nga am yenn yi mais quotidiennement yaa ngi am xalaas quotidiennement yaa ngi am tës kon donc ñoom bu ñu demee ba gagné nag dañu war la page bàyyi yeneen jeunes ñoo remplacer leen ñoom ñu dem yenu liggéey boobu parce que munoo boole rajo ak liggéey mairie dafa metti nee nañu amuñu salaire salaire. waaw mais boo amul salaire am yaa ko engagé woon. yooyu yaa engagé pour yenu lii parce que président Macky Sall géomètre la Macky Sall géomètre la de. Macky Sall mboo dàq gis lu kenn musul gis. géomètre dafa mel ne seetkat da nga lay tegal benn machine kon caméra bi nii ngay xool nat bu mu visé wu neet na picc taxaw samp gaay yi samp ñu ne fii la war a jaar mais bu ko neexoon tey ne day bàyyi réew mi dem nekk géomètre parce que moom métier mooy géomètre Ahmed Aïdara métier journaliste la Ndoye baan animateur la léegi jox nañ leen benn sas boo xam ne da ngay yenni animation bi ak journaliste ko fële dem yenu li askan bi yen bul ci xaar salaire parce que yaa ko yenu loolu nga doon campagne kay am nga ko léegi demal mais nag il faut pas il am ñoo xam ne nag fu mu ne seen xel dafa nekk ci député maire député maire rek li la ko may mooy nga toog fa doon toog di kaasaat pour am poste député mm-hmm. yaa ngi rey ki nga xam ne moom mënu nekk animateur pour am loolu te gars yi ils sont galants xam naa Ameth day kii nii rek Ameth day toog attend passation bi rek mais dina delluwaat ci géejuwaay ci mairie bi moom Ndoye Bane yëpp dañuy delluwaat ci seen i mairie bàyyi euh, euh, ak la presse ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi war a yéeg xale yi war a yéeg mm-hmm. waaw loolu ah loolu laa lañ conseil man mm-hmm. wax dëgg yàlla te moom mooy chemin bi parce que munoo toog toog tamit di plaider di campagne pour être député ndax député maire dafa neex <laughs> député maire ñi ay maire nañu waaye nekkatuñu député dans six mois législatif yi am boo audience ki nga xam ne nekkagul candidat parce que yow téye quotidien kee moom balaa muy wax campagne ñëw raw nga ko